وليهب بسورة النساء كونك لي في صبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تقرر ولا انتحار وحسمة من الأسى والتسكر خاصة نسامي والتطوي فكري واجعل كلامي راسدا ومرسدا وفكرتي نور قلبي أرسدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit te di mbokk gox yu fasantikoo yi dellusiwaat nañ ci sunu xasida gi nga xam ne moom la ñu baaxoo di ko ànd ak yéen ci koor gi muy xasida ak taysirul asir fi salaati wa taslimi ala al basiri wa nasir li abdillahi wa qadimi rasuli salallahu alayhi wa sallam sëriñ bi daf ko ci julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam yonente bi nga xam ne mooy aji bégal ñi ko gam ci aljana waaye mooy aji xuppi ñi ko wéddi ci safara kon bayit yooyee ci lañ daane woon démb mu doon ñaan boromam ci barkeb sóoratu nisaa yi suñ borom nekkal ko ci suba yi ak ngoon yi waaye boo diggee sëñ Tuubaa di ñaan boromam mu nekkal ko ci suba yi ak ngoon yi ah dafa nekkuloon yàlla ci suba yi ak ngoon yi ba yàlla nag mujj nekkal ko moom ci suba yi ak ngoon yi nañ jànge woon ci xasida googu ñu doon firi bu yàggut mooy bismil illaahi la si quraanu qad nasala min hubtidaa in wa arjoo xentu woon nusula ma nga doon wax ci biir xasida gi man kaana lillahi kaana llaahu jalla lahu waaye nag wa man tawasala bil maahi loo xubila ne ne képp ku nekkal yàlla suñu borom nekkal ko te képp ku tawasul bi ñaan ci daraja yonent bi suñu borom nangul la naka noonu boo demee ci alxuraan dafa nekkaloon alquran ba noppi alquran jàllal bi ko soppeeku ab jëmm di ko liggéeyal kitaabu rabbi kaana lii wakkuntu lahu walilaay bi sakantu sëñ tubaa dafa nekkaloon alquran ba noppi alquran jàllal bi ko nag nekkal sëriñ bi nee na alquran mooy téere boo xam ne képp ku ci sax dàkk di ko liggéeyal suñu borom dana sellal xam-xamam ba sellal jëfam ji sellal jukkoom ja wax na ko ci xasida ak busra lana wax wal kitaabu la si man kaana xaadimahu sakkan la wal xelm wal ahmaalu siyam wax na ko ci barab yu bari bari kon nag mu ne yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga may ma ci barkeb suratu nisaa yi maanaam nga nekkal ma rek ci suba yi ak ngoon yi lu ma soxla rek nga defal ma nekkal ma rek waaw te na nga barkeel sama guddi yëpp guddi yëpp na ko barkeel waaye bëccëg yëpp na ko barkeel ci lu dul benn waru wala ware waaye nag nag ma may loole nga xam ne mooy xes ma mooy ak ñoŋ ak ñoŋ waxoon nañ leen démb ne xes ma yonentoo ko am nga xam ne max soow moo na lañ dañ leen di aar lu ñuy musal leen ci gépp yàqute li leen yàlla yónni yëpp yàlla moo leen cee aar duñ yàqule mukk ñoom yonent yi xes ma lañ am waaye suñ tubaab bala nga xam ne mënoo koo classé fenn mooy la yonente yi da am lay ñaan boromam léegi-léegi sax mu ne yàlla may na ko loo xam ne faw xana leen xam nga ko mënoo koy lim ci wàllu yi la bokk wala feneen la bokk Sëñ Tuubaa bu ñu laajee mooy kan nal mooy ku kenn xamul ndax boromam da koo may ba may ko lu kawe njortam te loolu yëpp mi ngi ko amee ci xasida yi mu ne nga defal ma ak ñoom nag ci lépp luy lor nga xam ne boo ko amaat boo ko xasee am rek lor mënatul laa jege lor mënatul laa yàqal mu ne nag waaye nag maa ngi lay ñaan nga sant sama xasida yi li fa am ci ci ci xasida gi la maanaam ci turu xasida gi la ci turu xasida ndax xasida gi dafa bari ay tur te lépp lu bari ay tur rek maanaam la muy tegtale mooy la ñu ko tuddee moo màgg ba dégg ñu ne bi dafa bëri aw tur yonent bee màgg moo tax ba dégg ñu ne sëriñ bi dafa bëri ay tur sëriñ bee màgg kon xasida gi itam bu bëri ay tur la muy tegtale mooy màggaayu xasida ba waaye nag mu ne maa ngi lay ñaan nga leeral sama xel nga xam ne xel mi moom bu leeree léppay leer xol beeg léppay leer saqa ul xaqali anaaral Moustapha qalba muridullahi fastanaara sëñ Tuubaa nee na murid bu jébbaloo rek maanaam rasulullahi xol ba leer dañ ca balancé nee na murid bi maanaam xolam leer googu lañ cee balancé sëñ Tuubaa ko bind de saqa ul xaqali anaaral Moustapha qalba muniru muridullahi fastanaara sëñ Tuubaa nee na murid fa ma ko fekk ñaan naa ko yàlla ay yoon mu lànk bañ bañ na ko may tamanantu an yecc laahu muridan fa abba miraaran nag laa wax nag miraaran ay yoon fa abba yàlla lànk ne du ma def murid waaye wa jaxale ni laahu sayxan muridan nee na yàlla mu jékki-jékki rek mënu ma def naa la ngay sëriñu murid ñi nga xam ne buñ la murid yow yaay moo tax suñu tubaab lu mu ñaan boromam rek la kawe njortam la koy boromam defal moo tax bi mu ñaanee boromam suñu borom def ko murid suñu borom na suñu borom na ko dumul ko def waaye dama lay def buñ ne murid yaa tax ñu naan murid kon murid ku nekk war naa xam lan la doon ban cër la am kon nag xaasaani saama wal tunawi fikri bu ko defee suuratu nisaa i nettali woon nañ ci mu wàcc te mooy madinatul munawara mooy suuratu nisaa il kubra saaru jigéen bu mag ngir li muy jàngale ci biir miiraas nga xam-xamu miiraas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy genn wàllu xam-xam miiraas moo tax gis nga yàlla lenn lu ne day wax yonent bi na ko waxal kul nangam neel nangam waxal nii lañ koy defee waaye miraas dafa xam ni mbindeef mën na ko séddale bu fekkoon ne dafa ko yonent bi wala mu wax kenn mu mu mu def miraas konoon xëccoo dana fi am xiiroo dana fi am ñaayoo dana fi am waaye saa yu ubbee téere bi di xool ci wàllu miraas rek yàlla moo ko séddale boppam kenn du ko séddale kenn du ko séddale miraas su ne loo jàng ci alxuraan mboolem miraas laay yuy ñëw di wax ci miraas yëpp yàlla moo koy leeral boppam ndax xam-xam bu sew sew la xam-xam bu jagale nag waaye boo ko xasee am rek am nga xam-xam mooy xam-xamu miraas kon nag moom xam boobu lay jàngale waaye indi ay xeeti xatt yu bari bëri bari ci biir saar yi waaye nag li ko dalee hurimat alaykum ummahaatukum wa banaatukum nga xam ne dana tudd foofu ay jigéen ñoo xam ne dafa xaraam ngay sëy ñoom dana ko tudd foofu kon moo tax naan ko sóoratu nisaa il muy saaru jigéen wu mag wi soratu nisaa i suxraa mooy soratu talaax nga xam ne wàllu fase rek ci lay wax lu jëm ci wàllu fase ak fay kon nañu ko jàngale woon démb bu dee ci riwaayatu warsa cent soixante la bu dee ci riwaayatu xafsa cent soixante la kon moo ko ëppee benn laaye moom riwaayatu xafsa nañu ko jàngale woon démb itam saar yi nga xam ne ñoo wàcc bëccëg ñoo ëpp yu wàcc guddi booy xool yu wàcc bëccëg tollu nañ ci quatre-vingt-trois booy xool yi wàcc guddi toll nañ ci trente et un naka noonu booy xool yi wàcc Makka ñoo ëpp yi wàcc Madina ndax yi wàcc Makka toll na ci quatre-vingt-cinq yi wàcc Madina toll ci vingt-neuf kon noonu lay demee jamono ji nekk mu ne wa xismatan min al asa wal taskuri xaasa nisaama wal tunuyu fikri wasalli kon ñu war a dalee wasalli ya salaamu wal tusallimi ala allati bihi fakat tawallami mu ne wasalli yàlla na nga dolli xéewal yaa salaam yow yàlla muy salaam yow muy borom ak jàmm ji ti di jàmmal ku la sopp yàlla mooy salaam nga xam ne baat bi yàlla du ko bëgg ba da koo bamtu ci alquran ci barab yu bari ngir bëgg jàmm rek dem nañ fu ne ba aljana buñ fa duggee tahiyatun fiha salaamun tulleeg màlli baatab salaam day mel ni tulleeg màlli aljana foofu mu ngi mel ni nga dugg ci mbooloo moo xam ne dañuy coor rek loo xam li ñuy wax boo duggee aljana nag salaam salaam salaam rek asalaamaaleykum rek nuyu rek tahiyyatuhum fiihaa salaamun wa aaxiru da'waahum an alhamdulillahi rabbil aalamiin kon baatab salaam moo tax yonent bi salaay salaam nee na baatab salaam lu baax la rawatina nga di ko wirde boo ko adapté nag mi ngi lay jox 371 nga xam ne dañoo bëgg nga di ko wirde lu baax a baax la ndax foo foo ko wirde rek jàmm dafay sax jàmm rek moo fay am moo tax yonent bi daan na wax ne dee leen siiwal nuyoo seen biir. bu ngeen bëggee jàmm dee leen siwal nuyoo usoo salaama maanaam dee leen siwal nuyoo ci seen biir bu ngeen bëggee jàmm rek da leen ko def nga xam ne baat bu neex la muy baatab asalaam ak jàmm alxuraan wax na ko ci barab bu ne wax na yonent bi salaay sam na ko buñ yéeféer ñi buñ la dikkalee aw xay defal ak ñoom jàmm am na boo xam ne sax da koo xam ne mu ngi koy wax wa isa xaatabahumul jaahiluuna qaaloo salaaman kon baatam jàmm gis nga jàmm lu ne da cee nekk waqul salaamun fa sawfa taxlamuuna fasfa anhum na nga leen du mooyu waaye waqul salaamun na nga wax rek na dem leen dem leen ma dem fa sawfa taxlamuuna ko ngeen di xam ku nekk loolu la yàlla di fay nga xam ne baatam jàmm dafa am solo nit ki ba mantu leen nekk mooy na ngeen teqale ko ci jàmm rek bu ngeen demee ba mën a nekk itam na ngeen tax na ngeen tëqoo ci jàmm bu ngeen di teqale ko itam jàmm rek loolu ngeen di mën a amee jàmm kon baatub jàmm dafa doon loo xam ne lu ama am solo la lu am am importance la te nit jamono ji nekk moom la war di sàkku ci mbokkutam jullitam moo tax ma ne wasal yàlla na nga dool ko yaa salaam yow mii borom jàmm nga xam dañoo bëgg nga di ko wird waxoon naa ne trois cent soixante onze boo ko kon jàmm ngoog lu ne xaj na ci lu ne rek ngi ci biir jàmm boo amee jàmm am nga lépp moo tax sëñ Tuubaa Cheikh Mamadou Basiru nee na lim njëkk a ñaan mooy jàmm moo tax bi amee jàmm lépp ko wuyu si ndax boo amee jàmm lépp ngi ci biir wa asbilana alayna rabbi xafiatan wa hablana xatta fi daarin yalaw Cheikh Maam Dul Basir nee ne sëñ Tuubaa mi njëkk a ñaanee jàmm ci xasida ak sindi bi moo tax ñu amee jàmm lépp wuyu si ko ndax jàmm wërsëg wërsëg mu ngi ca lu leen ca waaye nag boo amee wërsëg te amoo jàmm est-ce que da nga ko jëriñoo kon na mat naa bàyyi xel mu ne wasal yàlla nga dolli xewal yaa salaama yow yàlla mi borom jàmm wal sa mi ta nga dolli ko wóolu alal la ci yonent bi nga xam ne bii ci dara jàmm ju màgg ja ju tedd ja fakkatta ci nga xobbee ci nga dajjee wala mii sama jéng nga xam ne loolu bu ko waxee rek mooy xaqabaat yi dox digganteem ak yàlla ba du ko mane ak jaamu yi nga xam ne day tere mu mën a jaamu yàlla yooyu lay wax xaqabaat jéng yi dox digganteem ak boromam pour mu dajj ko ba mën a yegg ci boromam nga xam ne loolu lay tuddee ay jéng léeg-léeg waaye jéng dafa am yenn mooy sa noon yii muy seytaane bànneex bakkan adduna loolu itam ay jéng lañ nit ki chaque jour dafa war a xeex ngir not bakkanam ngir daj jéngi yooyu yëpp dafa war di xeex bakkanam nga xam ne xeex xare bi gën a màgg mooy xeexal sa bakkan gis nga saxaab yi lañ doon def màgg na lool di jël seen jaasi gi di jihaat da xare ak a bax ak a màgg waaye dama ne xeexal sa bakkan ba nopp ko moo moo ëpp doole xare kon loolu dafa mat a bàyyi xel leer laale ba mu ne wasul yàlla nga dolli xul yaa salaam yow mii boromum jàmm ji tey jàmmal ku la sopp ku am jàmm ci jàmmam ji ci nga amee jàmm wala tusalu mi ta nga dolli wóolu xaalala si ci yonent bi nga xam ne bi ci dara jàmm fa katta ci nga xobbe ci nga dajje wala mi sama jéng maanaam xaq baat yi dox digganteem ak boromam bam tee man a jaamu yàlla xaq baat yooyu lay wax suñu borom dajj wale ko te gis ne bu jullee ci bu ñaana ñaanalee yonent bi salaay salaam suñu borom julli ci moom daf cee boolewaale ak cant wala mu ñaan borom ndax bim ne alal la fii na bii fakat tawle mi ci darajaam bi ci nga xobbee sama jéng lool da koy da koy wax ngir jublu min baabin taxadusu bi ni mit laa nga xam ne day santaale boromam ñi ko defal loolu waaye defalee ko ci darajaa yonent bi salaay salaam waxwal musamma saaxiba ridaa'i wal aali wa sahbil musiili daa'i léegi saa yu jullee ci moom indi turu yàlla ñaan sunu borom sotti salaatu wasalaam ci kaw yonent bi dafay indi aw turam ci turam yi moom yonent bi moo tax mu mu gën koo feddali mu ne waxoo moom yonent boobu may wax na na nga def sotti salaatu wasalaam ci kawam almusama mooy ku ñu tuddee ki kaahiba rida i làmbaay bi mooy borom làmbaay bi mooy ni mu daan solo solo ba jekk làmbaayu jël ab kaala teg ci doxam bi nga xam ne lu rafet la daan doon ci moom nam ko daan defee nag aw tur lañ ko tëgg tuddee ko ko wax naa la yonent boo gisee ñi koy tuddee tur yu bëri yëpp mooy nam daan doxalee nam daan politique nam rafetee léegi nag dañuy soppi dañ ko tëgg ay tur di ko tuddee kii mooy ku baax kii mooy ku tabe kii mooy ku nangam xam nga tey ñu la gisoon nga tabe ñu ne diw de nu tabee léegi nag yonent bi tabe gi mu tabe woon baax gi mu baaxoon leer gi mu leewtoon nu mënoon a matal ko leer loolu loolu nag lañ tëgg ay tur ba noppi di ko ay turam la jukkoom la ay meloom la nga xam ne daf daan sax dàkk bi ko def moo tax ñu tuddee ko moo tax ma ne woo woo moom alamu sama mooy ku ñu tuddee ki saahiba ridaay borom ak làmbaay gi lu rafet la daan sol làmbaay moom yonent bi salaay salaam waaye nag salaatu boobu mu junjoon na wasali yaa salaam moom la wax ne bu mu yem ci yonent bi képp wal aali moo koy waa këram wa sax bi ay sahabaam tàgg na leen nag mu ne sahaaba yi nga xam ndax sahaaba yi da leen di boolee di leen taggaale Sëñ Tuubaa day tagg sahaaba yi tagg yonent bi day tagg sahaaba yi tagg yonent bi moo tax sahaaba yi nga xam ne wooy dañal nañ fi addaa i jàngoro muy feebarub yéefir rek feebarub widdi yàlla sahaaba yi ñëw fi dañul ñoo dem xare ci lislaam ñoo dem jihaat ak noon yi ba ba fàdd leen ba nangu seen alal yépp rey ci ñoom lu bari bari ba jullit ñi tey ku ñeme ku ñemee julli sahaaba yi ñoo tax sëñ Tuubaa sax nee na tey buñ demee ba nit di ñaan yàlla di ko nangul sahaaba ya tax bihi qanina lil jinan han qaswatin wa han hawan bihi lana taaba samaan maha qaboolil xëddami moo tax mu ne fël muhammadillah kon nag war na sant yàlla saaba yi ñoo ñoo fi def lépp kon nag mu ne wala aali ñoo moo ñoñam wa sax bi ak ay saabaam al musila ñi nga xam ne wooy dëñal lañ fi addaa ay jàngoro te mooy jàngoro bi weddi yàlla saaba yi ñoo fi dëñal ñoo ko jiyaat ba mu jeex fi wan sur ale barakatil maida wàcc al xayaati ya sakooru faida sëriñ bi ne yow suñ borom wàccal maa ngi lay maa ngi lay ñaan nga def waaye nag wàccal boo gis rek mooy jaxalta la maanaam def na ba noppi suñu borom def na ba noppi waaye day ñaan ngir fàmmonte te gën a ñaan moo tax mu ne wàccal boo gis rek ci xasida yi mooy jaxalta la def nañ ko ba noppi wàccal yàlla na nga def xayaati sama dund yaa sukoor yow yàlla mi santaakoon bi ndax na laaw saakiran aliban yàlla moo ne moxtu dañ di santaakoon di xamaakoon yaa sukoor yow mi nga xam ne yaay santaakoon maa ngi lay ñaan nga def sama dund yëpp faida muy njëriñ nga xam ne dund sëñ tubaa fu ne lépp njëriñ la dundu sëñ tubaa lépp mujisaatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la xustu hayatan la turali xayri mujisatan baanat li usmi xayri nee na sama dund làq na yëf yooyu ba yàlla commencé joxe dund ba léegi amul dund gu làqee ni sama dund gi làqee ay njëriñ moo tax yàlla far na ma def naa sa dund yëpp muy mujisaatu yonent bi gën a màgg dundi sëñ tubaa muy mujisaatu yonent bi gën a màgg xustu xayaatan laa tura li xayri muxjisatan baana li usni xayri waaye kulliyati muxjisatan fa aqarat wa xayra xayraatin la day ko uqarat na sama lépp bu bàyyi dara kulliyati daa foor bokkut ak kullu kulliyati moo gën a foor nga xam ne jumaa ji ci la bokk ndongo yi ci lañ bokk loo a lim limaale ko Sëriñ Tuubaa rek ci la bokk kulliyati daa foor nee na sama lépp muxjisaat yonent bi la kon nañu sant yàlla mu ne wasaal yàlla na nga def xayaati sama dund yaa sukoor yow yàlla miy santaakoon bi te yeyoo ak cant faida sama dund lépp di ay njëriñ ci yàlla wansur yàlla na nga wisare xale sama kaw barkaatil maidati barkeeb maida ñaan na sunu borom mu saare ci kawam barkeeb saar wii di maida maida aw saar la woo xam ne mi ngi wàcc madinatul munawara li tax mu tudd maida maida li muy tekk mooy ab taabul bu def aw ñam wu neex neex li waraloon mu wàcc nag ñi nga xam ne ñooy nasaraan yi ñoo waxoon seenub yónnentu muy Iisaa ibnu Maryama nga ko fokk balaa ñi lay gëm ñaanal sa borom mu wàccee ci asamaan ab taabul boo xam ne day wàcc ñi di ko gis muy wàcc ñi di ko gis ba mu wàcc ba yegsi loolu daal boo ko defee rek fu nit ñi gëm la Iisaa ne ndax bu ma ñaanee sama borom mu wàcc ko ndax da ngeen gëm ñu ne waaw dañ gëm Iisaa ca gëm ga ak mat ga ak matal wëllëre ga ñaan boromam sunu borom nangul ko ñaan ga ñu toog toog tuuti jékki gis ab taabul boo xam ne mu ngiy wàcce ci kaw asamaan di wàcc ba yegg seen biir bi ko Iisaa dikkee fekk boobu ay jën la borom xam-xam yi na ay jën moo nekk ci taabul ba ndax jën moo tax lu baax la ndax sax bañ nañ ko ba yowmal xiyaam buñ fi duggee biit aljana lañ ñee njëkk tere terale mooy resu jën nee na nag bi taal bu wàccee nasaraan si kenn nangutu lekk ndax wóoluwuñ ko dal ñu ne ko nag yow xinsa bala ñuy lekk da ngay nangoo lekk xinsa dippi jën jë léegi bi mu ko dippee ci gàtt rek xinsa ne la waaw léegi ñu gën a loof ñi gën a lapp ñoom ñooy njëkkee lekk bala ngeen di lekk ñi gën a làpp léegi nag wax nañ ne ñi gën a làpp ñoo njëkk lekk waaye ku ci lekk rek mboolem jàngoro bi nga amoon yëpp dafay tena ci sens jàngoro bi nga amoon yëpp dafay ten ci sens kon maïda mooy ab taabul boo xam ne dafa def ak lekk waaye buñ ne maïda arab bu waxee maïda mooy dafay ànd ak ndox ay boisson lu ne rek day nekk ci biir lekk ga bañ lekkee ba suur fa tabaaraka la nga xam ne laaya la joo xam ne sax ku koy xëy di wax saa yoo jógee suba teel wax doo ñàkk de dépasse allahumma rabbana anzil alayna maidatan mina samaa'i takunu lana heedan li awalina wa axirina wa ayatan minka warzuqna wa anta xayru raaziqiin te yàlla yow suñu borom mais sax dafa ñaan yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga wàcce suñu kaw aw taawul boo xam ne dafay bàyyi ko ci asamaan boo xam ne dana nekk di seet ñeel nu ñi nga xam ne ñoo di woy njëkk ñi ak woy mujj ñëpp dañ koy seet waaye nag mu nekk di kawte bu bàyyi ko ci yow nga wërsëgalee ñu ko ndax yow yàlla yaay ngën ci way wërsëgale yi bi mu ñaanee loolu yàlla nangul ko na waxaala laaw ini mu ni silaa yàlla na ko aji wàcce laa ko ci yéen waaye gannaaw bi ma ko wàccee képp koo xam ne weddi na gannaaw ba ma ko wàccee danaa ko mbugal mbugal moo xam ne mosuma koo mbugal kenn ci mbindee fi fa man jàppar boodu min ko fa in kon jàppal na rek maa ida foofu la bay ko mooy lañ ñaanoon seen yonente te muy kawteef muy xarbaax bu yéeme yéeme waaye mu ñaan boromam rek gis nga yonent yi dañuy xaretoog seen borom moo tax seen nit ñi bu ñu leen weddiwaan bu ñu leen laajaan kawteef donte ñoom seen nit ñi bu ñu leen laajaan te dañ leen di laaj ngir yëjji leen foog ne mënuñ ko waaye bu ñu ñaanee seen borom suñu borom defal leen ko kon foofu la Maïda baye ko mu doon saar woo xam ne nag saar wu bëri bëri ngëneel la moom Maïda mii mu ne kon wan sur maa ngi lay ñaan nga wisare alay sama kaw barakaatil maida barkeb suratul maida waaye wàccaal maa ngi lay ñaan nga def sama dund yaa sukur yow yàlla mi nga xam ne yaay santaakoon bi sama dund lépp faida di ay njëriñ mu ne wasal yàlla nga doolu xewul yaa moomin yow yàlla mi nga xam ne yaay yi joxe kaaraange xam nga moomin ci bu dee nit nga ko wax mooy jullit dëgg-dëgg bu dee ci tur yàlla yi la mooy kii joxe kaaraange mooy ki am kaaraange ba noppi di maye kaaraange moo tax ma ne wasal yàlla nga doolu xewul yaa moomin yow yàlla mi nga xam ne yaay aji wóoluloo sab jaam yaay aji may sab jaam ab kaaraange waaye bi taslimi ak mucc ala nabiyillahi ci yonentu yàlla bi ci taslimi kay borom ak jàngale ndax yonentu dafa ci hadis sunu borom daf maa yónni ngir ma jàngale innama bu'istu bi taxlimi dañ maa yónni ngir may jàngale kon ci turam yi la moom yonent bi salaay salaam mu ne waxu moom yonent bi almusama mooy ku ñu tuddee saahiba liwaayi borom darapo ba borom liwaaul hamdi nga xam ne bu yowmal qiyaamee nee na sunu borom daf may solol yiru yiru yu rafet koddaay gu rafet nee na gannaaw bi ma ko sololee ba noppi naka noonu sama sama gannaaw ku cee topp mooy yonent yàlla Ibrahima naka noonu yonent yi nañ ko gën a kawante noonu lañ cee topp noonu lañ koy toppee. mu tikk drapeau ba ca kam ca kaw ñëpp di ko gis xam ne kii mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xam ne ñëpp buñ jàqee moom la ñuy jëmale. yawmal qiyaamati taati rusulu qaatibatan wal anbiyaa'u wal kullu qad ukima loolu la Sëñ Tuubaa wax nee na ñëpp bu yawmal qiyaama kenn du tal sa bopp ku dul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ne rek mas yi ngay wax sama bopp doy na ma waaye ñoom ñëpp dañuy daw li jëbal yonente bi salaay salaam buñu demee nag mu nar a julli ñaar rakk suñu borom na ko julli xajut fi léegi nag waxal li nga bëgg mooy ramal sa xet yonente bi nee ne féeg ram ma sama xeet du ma gërëm wala saa fa yum téeka rab bu ko fa tarda nee ne féeg sama xeet yi ram ma leen bi dugg aljana rek du ma gërëm moo tax mu ne waxu mu almusuba mooy ku ñu tuddee ko saahiba liwaay borom liwaa ul hamdi borom drapeau ba waaye nag salaatu googu wal ali moo ki waa këram wa sax bi ak ak ak ay saxaabam xaalastiwaay ci ak yemoo nga xam ne salaatu gi daal ci gàttal day ñëw ci waa këram ñëw ci saxaabaam yi ñëw ci yonente bi salaay salaam ñëpp rek maanaam emoo daal ci moo tax ma ne wasal yàlla nga dolli yow mi nga xam ne yaa aji wóoluloo sab jaam di taslim yi ànd koog mucc ala nabi laay ci yonentu bi yàlla bi ci taslim yi koy borom ak jàngale waxu moom yonente bi al muslima mooy ku ñu tuddee saahiba liwaayi borom liwaa ulhamdi ba loolu ci tur la bokk waaye nag salaatu gi wal ali moom ñoñom salaatu gi wa soobi ak saabaami xandastiwaa i ci yemoo képp nag